kon rek nañ bàyyi mbirum nañ bàyyi mbirum burkat bi parce que bu leneen feeñee nopp dina daal di dar mais la ñu gis fi ay jamono nga amoon problème ak ki nga xamante ni moom moo di euh, Ahmed Khalifa ñas euh, ginnaaw ba doomam defee woon accident ba sa frère daal di si ñàkk bakkanam mbir moomee naka ngeen ci mujjee. mbir mi demoon naa ci àtte ba man yàlla defoon na sax man mm-hmm. kundug maa fa teewoon man kese ak sama benn bàjjan boo xam ne moom fa lay liggéey sax ci tribunal ba. Mm-hmm. man mosuma gis àtteeb fukki minute ak juróom. àtte hmm? boobu noonu fukki minute ak juróom lañ ko àtte ñu ne ñu ne bi ko àttee ba pare ñu ne daan nañu xale bi cinquante six mille francs xaw ma nag kuñ ko jox mais du ñun famille bi ñun laal ñu cent francs ci côté boobu. ñaareel bi tamit lañ doon àtte loolu procureur moo ko doon àtte lu ndax euh, bu bu jëyee amee ba pare yoon ci boppam sax day àtte yoon moo doon àtte lañ fa doon àtte mais ñun plainte wuñu woon euh, ñu ngi xaar nag. ba dëkk bi tegee ci yoon bu dëkk bi tegee ci yoon euh, dinañ dinañ dinañ def luñ mën pour dëgg feeñ parce que tamit doom doom doom la quoi. Hmm. kenn kenn du fi jëlee suñu doom bu pare yow ñëw nekk. ci jàpp si ñoom topp loolu. ah non man du ma bàyyi sama rakk nii nii nii noonu ci zéro non jamais man jour boobu jour àtt bi yow boo fa ñëwee yow sa yaram bi day daw barke alxuraan xale bu jigéen bi xale bu góor bi garde corps yaayam moo ko indi mu ànd quatre avocats quatre laa la wax de. yaayam maanaam groupement de femmes yi nekk Kaolack ñi ci ëpp ñoo ñëwoon assister jour boobu mel ni laa la wax nii ñoo xamante ni. mel ni meeting mel ni meeting man kundug maa fa teewoon ci famille bi comprendre nga ñu àtte ko. siis bi koy àtte non almaan naa ko maam day tëdd six mois yoo xam du ko tëdd amaan cinquante six mille francs <laughs> man ma jóg gudde saal bi. Mhm. parce que amatuma fa soxla. léegi tamit jamono jooju ki fi nekkoon xam ngeen ko kooku moom. Macky Sall tappalekat la yoon tegutoon dëgg léegi nag comme dem na ñu xaar bu ñu defaree yoon ba yoon teg ci yoon. ngeen def appel barke alxuraani karim du ñu bàyyi. waaw ndax man dafa am ñoo xam ne sax man dama leen nawlawut nga yow koo xam ne nga ne sëriñ nga yor hôtel hôtel. Kamam ah, man du man yooyu du ma tudd turam sax mais. koo xam ne yow li nga xam day leer nag non dama la benn affaire xam nañ ko question laa la posé Amina dama la benn affaire man question laa la posé ci Ahmed Khalifa Niass. par rapport ak accident bi nga xamante ni na ko. gis nga même même même même suuf soosu ngay wax noonu boo demee ñàgg gii. Mhm. kooku ngay wax noonu. lu metti la fa daj ñu bëri ñoo xam ne dañoo dañoo dañu dañ faa maanaam dañ ko misère ba xëy gaañu te jot naa ci lépp maa ngi toog ci lu dëgër di xaar parce que bàyyi xaaral rek. dañoo nangu seen suuf ñu koy. miin non dégg nga la kooku nga wax noonu tuddee na boppam foofu tuddee na foofu noonu cité boobu noonu. tuddee na fa ñàkk mais mais kaay mais kaay kan nga boobu sax amoon na benn scandale bu fa am bu fa amoon état hôtel boobu benn jour boo xamante ni benn waay boo xam ne maam alkaati la. Mhm. mu jóg di def patrouille di dugg ci dëkk bi di lijjanti di xool comme ni alkaati di def rek mu jóg ba toll ak foofu noonu mu laaj ki fa nekk ne ko ana kayit yi mu génnal këyit yi mu ko wan jox ko ko mun na ko lii lii lii du këyit yu baax yi waroo ci tijj hôtel wala auberge. hôtel bi nu mu tudd. non c'est pas loolu affaire yow yow xaaral rek léegi waa ji ki fa nekk woo téléphone ki ngay wax kilifa googu noonu naan sëriñ la. Mm-hmm. mu woo ko téléphone mu ne ko jox ma gendarme bi mu jox ko gendarme bi mu wax ko lu ñaaw. Mm-hmm. ah kooku kooku kooku ne du ma fi jóge ko lu rut dañ maa jox këyit yu leer wala ma tëj ko. Mm-hmm. xam nga nan def. ki fi jiite woon gendarmerie la kooku moo woo ki fa nekk noonu ne ko jógeel ko foofu du ma sax nekk fii naan ay Moussa Fall laa la wax moom moo woo ki fa taxawoon noonu ne ko jógeel foofu moo tax affaire Sonko bi kenn bëggutoon Sonko jógee Sonko toog parce que di ñi fi maanaam ñi fi nekkoon jubadi gi nekkee woon ak tappale yi ak yëfi dëmm yoo xamante ni maanaam tous les moyens sont bons pour nga am jàmm xoolal xoolal loolu yow yow yow nga ne ci yoon yow. mais oto bi hôtel baa ngi Kaolack. waaw fan yii sax dégg naa ñu naan tëj na eh, booy yow mu tëj ko de man man ji ma man si man xeex ak man baaxul de man du ma bàyyi de barke Seydina Mohamed Moussa Fall laa la wax Moussa moom moo woo ki fa taxawoon noonu ne ko jógeel koo foofu kooku xoolal loolu xoolal naxar woowu yow nga ne yow maanaam nga nga ngay servir sa pays ma pour def dëgg pour orienter dëgg nga dem ba gis loo xam ne lii nii am na lu manqué ci ay papier ci compris nga nga nga ne na fi jóge ko. maanaam kooku bi mu woowee téléphone ki moom hôtel bi da kaa saaga. Mm-hmm. bi mu ko saaga kooku gën a mer nag na day tëj affaire yi ah? léegi nag kay ñëw def lu ko neex woo ko téléphone ne ko jógee kool foofu xam nga kooku li tax hôtel bi tëj sax mun na am nguur gu bees gi la. xay mm-hmm. fii léppay la yàgg sanc la waaw mais nit ñi dañ fa dem dañ fa daan fi rek. ah maa ngi ay man maanaam sama rakk dem na nag. nuuru yàlla na yàlla. mais après après après après tribunal bi euh, déggante waatu leen. ak amuñu amuñu amuñu benn amet amet moom sequñu ak moom dara waaw fii la taxaw di wax naan suñu suñu sëriñ la ak maa ko doon sagal naan ko sama sëriñ la ndax ñas gi mu sant mais man xaw ma ko masuma ko gis à la nag bi may nekk ci histoire ak moom jot naa ay coup d'appel yoo xam ne ay nappaate la yooyu man yooyu tiitalu ma man. la waxoon rek ragaloo ma comprendre mais man sama famille ñëpp bu ñu bàyyi woon sax man du ma bàyyi man du ma bàyyi parce que alxuraan man sama rakk kenn du ko rey ba pare di tëdd di nelaw di am jàmm. kon à tout moment doo see non non non ma bàyyi. man dégg la ma la su ma doon def appel cent fois cent laa la wax de ñu koy rejeté du ma bàyyi. léegi yow looy xaar ci appel bi. li may xaar mooy d' accord nañ ne ki ñu dénk ministre de la justice bi ñëpp ko nawloo yaakaar naa ne balaa yàgg dina def ay réformes. bu sensé ñenn ñi nga xamante ni. Mhm. ñu gën a jubadi ci yàlla bi ni ñoo fi nekk bu ñu fi jógee ko ba pare waaw nga def appel. mais pourquoi nga ni da ngay def appel ak euh, lan nga gis ni jaarul yoon ci àtte bi ban dëgg moo nekk ci ginnaaw. waaw mais quand même Amina yow nit nan lay gaañoo nit gaañu ki gaañoo ñu jël ko yóbbu ko ci armée yi denc ko ki ki nga xam ne moom moo gaañ ñu indi ko dakaar di ko làq ci benn clinique boo xamante ni naan ay dafa feebar. te dara jotu ko. kon yow yow secret bi da nga bëgg wax secret bi mi ngi nekk ci accident bi li ñu révélé du loolu moom moo ci. non bi du loolu xam nga tey dans la même même l'islam sax soo ngeen jàppante yaa nit ba dee am ca def naa da nga koy jox dëya ñun laaju ñu leen dërëm xale bi xale bi gaañu noonu mu ngi yor tout tànk boo xamante ni yow soo gisoon di nga mën ci moom dara xale yu ndaw la fa bàyyi. mais ñooñu dans la norme tey tey man même nekki ki boo bu dee dafa gaañu. te gaañu gi yow maanaam sa sa deret sax ci sax sa xol warul laa mën a may yow ñu naan ay cinquante six mille francs ngay tëb di dal cinquante six mille francs lan la mën. ci ñoo xamante ni koo xam ne mu ngi bàyyi ay doom yoo xamante ni maanaam yaakaaruñu fenn jëmuñu fenn. kon yow looy xaar ci justice. waaw mu def dëgg rek def yoon man moom li may xaar. Mhm. wallaahi mu def dëgg def yoon. mais nee nañu accident la accident boo xamante ni tayu ko. non tayu ko moom mënul nekk. loo bëgg wax kenn wax ne kenn du wax ne daf ko tey rey doom rey ko rey ko loolu moom kenn du ko wax parce que yàlla moo doon mën naa am bakkanam fa lay jeexee. Mhm. mais li ñu mënul comprendre mooy après accident bi acte bi am acte yi am moo rafetul. ba ba mooy sëq doomi jàmbur yóbbu ko ci armée la ñu suul ko sa doom yow nga jël ko yóbbu ko ci clinique boo xam ne di ko làq. loolu gis nga autopsie autopsie bi génn sa ko amul autopsie amul dara. gis nga hôpital bi accident bi bi mu amee man su ma waxuloon kenn du ko xam. mais jébbal nañ leen néew bi yéen ngeen def ci li ci wax. Ah, néew bi ñun ñoo ko jëli de néew bi ñun ñoo ko moom ñoo ko jëli mais accident bi man su ma ci waxutoon kenn du ko yëg man maa njëkk woote wal fajiri konoon dañ koy xuumtoo kenn du ko yëg wal fajiri ga ma woote woon sax dem na ba ci kanam xoolal waaye yow ku wal fajiri ñëpp may daw ñëpp man yooyu moom mooy loolu man man moom man man man du ma bàyyi man daal li ma wax du li ma wax moom du ma ci génn mètre. fii ak koo mën a doon bu demee ba nga xamante ni àtte bi santatut nenn àtte àtte senegal fii àtte yoon santatut nenn amatut sant voilà à la bu baax moom danaa jóg def lu mu mën pour sama rakk am dëgg waaw ah, loolu moom duma ma bàyyi. voilà merci beaucoup. nañ maa ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax a baax. Mhm. Euh, comme ni ko waxee rek nii nga comme que ministre de la justice bu bees moom moo fi nekk. ah oui nga dugalaat appel kon mu mel ni rek euh, sa diggante ak doomu Ahmed Khalifa Niass bi wala Ahmed Khalifa Niass. nekkagul loo xamante ni moom luy luy jeex léegi la te appel nee na tant que mi ngi am droit rek dina dugal appel ba keroog rek dëgg bi di génn ca kanamu justice xanaa ma jaajëfal la rek à moins que nga am loo ci leneen li may wax daal damay encourager état bi. ci jiw wi nga xam ne jël na ko nar koo jox armée bi mu séddale ko. maanaam man jour bi ma man état Sénégal bi jour bi ma déggee loolu mbégte mi ma am. gëj naa ko am moom. daa ilaaha illallaah gis nga commission bi daan séddale jiw wi ñoo dàq sàcc Macky Sall. laa ilaaha laa commission bi nga xam ne moo daan jël jiw di ko séddale. wallaay moo dàq sàcc Macky Sall gis nga ñooñu ñooñu dañ ci daan ànd ak nag ay kaymaa yoo xam ne. ñenn ay préfet lañ ci commune bañ nekk maanaam ñenn ñi ay maire lañ. Hmm? jiw bi baykat bi daanu ci jot yow. yow toog ba ci ay information de. waaye yu man yu déggoo la ma la man fa ma dëkk. Hmm. man man man man maa ngi ko jamono yi abdu Diouf kenn ku ne mën nga ko waxal lu ne mais jiw daan doy ci dëkk bi dañ daan jëli jiw maanaam lépp luy dox dañ koy takk dem jëli jiw mais jamonoy yi Wade ak Macky Sall yow imagine yow baykat boo xamante ni yaakaaroo lu dul bay ñu lay jox juróomi kilo yu gerte nga xam ne mënul sax maafe maafe mu dëgër foo jëm. Mm-hmm. ah gars yi nee naa la xoolal même coopérative yi bëri na fi coopérative yoo xam ne ay sàcc lañ. xam na la ñuy def maanaam bu leen état ne leen yóbbu leen poos koto deux mille cinq cent tonnes. Mm-hmm. xoolal benn tonne la ñuy yóbbu benn tonne ba sax yow boo leen di jaay gerte da ngay teg ñaari saako ak genn wàll mu nekk mbaam. ñoom bu ñu lay jox gerte. benn saako ak galla mooy nekk mbaam parce que ñoom seen gerte gi yow da gis coopérative boo xam ne day yóbbu gerte ci àll danaa la man man am na coopérative yoo xamante ni camion sax dañ koy gaare ci àll bi du ci dolli suuf suuf laa la wax suuf dañ koy dolliwaat ci gerte gi pour maanaam parce que oto bi bu ñu ko yebee ba pare day jaar pont bascule ñu peese ko mu dem sotti ji ko direct ay sàcc lañ commission bi nag yu bëri commission yi fi nekkoon yi si ëpp tey da ngay gëw da ngay ñëw yow nga war a yóbbu sama commune nga war a yóbbu deux mille tonnes ah nga yóbbu fa mille tonnes yeneen mille tonnes yi këyit moo koy yeggale maanaam da war a ne andi nga fi deux mille tonnes rek fekk mille tonnes nga fa yóbbu li ci des këyit moo koy yeggale sàcc googu yëpp Sonko jëlee ko fi non Sonko amul fayam barke Rasulullah loolu moom dama ko ci encouragé man man man daanaka man bu fi yemoon sax mu neex moom waaw fi mu toll nii bu fi yemoon sax mu neex man non man sama gouvernement neex moom parce que suuf si dama ci xam lu bëri ñaareel bi tamit jiw bi man man man daanaka liñ mbëri naan alalu alalu mbër lañ la ngénte man alalu mbay lañ ma ngénte léegi jiw bi ñu ko doon këppatal engrais bi da nga naan gis am na fi am na fi commerçant yoo xamante ni décaissé woon nañ xaalis bi ñu waree jënd engrais ba pare gis nga bu Macky Sall gañoon moom dal nañ ci décaissé woon nañ lijjanti woon nañ maanaam deux cent millions yi ñu war a jëndi engrais ba pare yow engrais bi dañ koy jënd ci lu yomb ci état bi dem jaayawaat ko béykat yi lu seer. Mm-hmm. lu seer léegi nag yàlla bu ñu dimbalee ñi fi nekk nii futteeku jëlee fi lépp non sant yàlla bu wër kay li ma leen di ñaan daal mooy su ngeen paree ci littoral bii ci tali yoonu géej gii ngir yàlla ak jëmmi rasulillahi dugg leen ci àll bi. tool yi ñu fa collecté yëpp. mbirum mbirum foncier bi moom day soo a tàmbali. non loolu loolu yëpp moom xaajul gis nga gis nga foncé bi suuf si. non gars yi ni ñuy def suuf si dafa ñaaw parce que alxuraan da ngay gis koo xamante ni yow day jël 15 hectares collecté ko moom kenn 15. 15 hectares collecté ko moom kenn. dënn na fa forage 3 millions. wallaahi dënn na fa forage dëkk bi mu nekkal nga xam ne ñoom ñoo ko jaay sax suuf si duñu am ndox dañuy takk seret di